Omar fay leeral askan bi ñëw na teew euh, pour wane soutien ak lu groupe des médias Omar bu ñu bu ñu jàngatee li nga xam ni moo jot a xew ba li ci mujj mooy ñëw inventaire li nga xam ne moom mooy ay matériel groupe des médias damay wax ne ñaari casquette moo am kii njiitu média la média boo xam ne xëy na ligne éditoriale bi ça dérange bii kasketu homme politique. li ma mën a jàng daal wax ko mooy lépp looy def na ko def ngir yàlla. pour le peuple sénégalais mais saa yoo nekkee tolof tolof doo gis peuple bi ils sont jamais à côté or ñi fi nekk tey c'est les médecins du peuple cest ku si am sa jàngoro si ñoom ngay ñëw ñu waxal la ko te yow boo ne amee jàngoro ñoom doo leen doo leen gis mooy première chose deuxième chose il faut que ki évite que ce qui est arrivé à mu arrivé ko li muy jéem a def Bougane Wade doon ñu ko jéem ci Youssou Ndour ak Bara Tall après gis ngeen ni mu mujjee donc tey Macky bëgg ko def Bougane ça risque d'être fatal pour lui c'est pas seulement Bougane c'est des travailleurs qui sont là avec leur famille et tant d'autres qui travaillent ici ICS doit beaucoup d'argent à l'État Sococim bénéficie de dégrèvement Matière SA toutes les sociétés étrangères qui sont là bénéficient de dégrèvement waaw waxatuma nag un Sénégalais qui est là qui travaille pour son ki qui contribue à l'économie de notre pays qui crée des emplois ñu bëgg bu dee si logique boobu lañ nekk ça ne passera pas jamais au plus grand jamais dans ce pays Macky osera une seule fois de enfermer une une entreprise de presse il n'ose pas. est que lu ñu jot a gis. nekkul ne loo xam il n'ose pas et il n'osera wax jëy bëri nii rek mais xalaatu ko pour ne da koy entreprise. non kon lu boobaa nag ma xam ne tout le peuple est marabouté Sénégal yëpp lañ marabouté kon bu yeboo ñu toog lem suñu ko kaaka ak suñu ak suñuy suñuy lépp. toog bàyyi Macky mu def lu ko neex réew. kon ça veut dire que li nga xam ne moom la ñuy toppee groupe des médias am na ñeneen ñu ñu ko war a toppee waaye dañ leen fi bàyyi. waaye c'est li ñu leen toppee loolu du logique déggoo ma am na ñoo xamante ni ils doivent des milliards à l'État du Sénégal qui sont là et on peut les citer tous mais lii dafa ñaaw ci peuple lii baaxul ci tenue démocratie baaxul ci image du Sénégal sax li lii lii ñu di ko def mais man mënuma concevoir ay Sénégal de l'extérieur gaajo bi mu amee problème kan moo ko réglé. est-ce que dafa créer ay emploi est-ce que dafa créer ay entreprise au contraire da doon dem di liggéeyal boppam di seet ay intérêt avec beneen société boo xamante ni ci wàllu pétrole la beneen ay pays boo xamante ci ay pétrole la mais moom mu lijjanti ko waa léegi kii tey tey bu nekk si trop comme fa la jëm nekk ci réewam créer ay emploi am def lépp nga bëgg a troxal ah non yooyu mënul nekk sax mënul nekk sax ça ne passera pas. te bu ñu xoolee boo waxee loolu ñu ngi wax état bi euh, teg na ay organes yoo xam ne ñooy taxawal ay emploi pour la jeunesse mais bu ñu xoolee tey la plupart ñu nekk si groupe des médias ay jeune lañu kon ça veut dire que foofu noonu xëy na nekk na wax joo xam ni xëy na wax lii wax lee. le contraire wax lii après wax la lee ma dama lay wax benn affaire nga xam ko c'est-à-dire ñun ñoo nekkul ci logique de préférence nationale. ñun nous sommes des sous-traitants c'est-à-dire que nous sommes pays de sous-traitants lépp lu baax ci réew mi c'est entre les mains des étrangers lépp luy luy mbalit wala muy saleté c'est pour le peuple loolu moo am fii et on peut pas être pays de sous-traitants yow puso puso sax Sénégal du ko defar puso da nga koy importer donc buñ ñu wax emploi des jeunes ba pare di bëgg détruire ay emploi c'est paradoxal c'est pas possible. ku nekk euh, koo xamante ni da nga créer entreprise. am ay des centaines de sénégalais ci ciy liggéey tey bu ñu xoolee rek du moom rek tey xëy na la ñu teg ay gàllankoor la plupart dañuy gis ay sénégalais yoo xam ne dañu investir fii ci biir réew mi dañu leen teg ay gàllankoor ba booy xool seeni entreprise dafay mujjee fayit ba chuté ba daal. il y a 3000 entreprises qui sont fermées depuis que Macky est là 3000 laa la wax entreprise. Ceux qui bénéficient des marchés aujourd'hui dans ce pays, c'est des gens qui n'ont rien foutu. seen kër lañ leen di fekk jël leen créé entreprise jox leen enrichir leen ñi nga xamante ni ils ont un cursus ils ont un parcours c'est ça c'est ça ça qui existe dans ce moo tax il faut qu'on nay vers un nouveau patrona patronat yi fi daan nekk naan dañuy xeexal entreprise sénégalaise yi waxuñu waxuñu dëgg seen bopp lañ fi nekkal. il faut que xale yi tey taxawaat tous les jeunes patrons yi nekk si ay entreprise ñu taxaw créer benn kuréel bu bees taxaw xeexal seen bopp bu buñ ko deful ñoom ñëpp xam ne dañuy dañuy judd tey dee tey ay morne la ñuy doon te loolu moo am nii ci réew mi mais yooyu nag il faut mu dakk n'est-ce bul jël entreprise teg ko ci politique ma bugaan bii de politique am fee la koy defee kooku ñoom la seen biir mais entreprise c'est autre chose c'est